def ci ay produits yu mucc ayib defar ci ay ay pavage yi ngeen gis nii def ci ay palaat defar ci ay baga ordure def ci këriñ loo xam ni dañ koy jëfandikoo di ñi ñi ngi togg loolu nag xam ngeen ni lu am solo la ci politique environnement loolu moo tax ñu woote woon tey ñëw def ko ah beneen bi ci des tam dañu bëgg a wane ni mbalit mi xale yi mën nañ koo jëfandikoo fi mu ne nii xale yi Louga yëpp ku ciy bëgg mën nga dem wut jël sa saaku tibb ay mbayit gannaaw bi nga bi nga sàmmonte ak charte yi nga xam ni mooy organiser wàllu environnement bu ñu foree mbalit yooyu indi ko fii GIE ba dina ko jënd ñu transformer ko jaay ci biir ko ci biir dëkk bi liggéeyee ko mu nekk suñu participation bi ñu la ci ko développement ci biir loolu yaakaar naa loolu am na solo teg ngeen seen bët te pare nañu aussi incha allah pour jàppalante ci ak képp koo xam ne ki bëgg na ko Euh, bépp collectivité locale moo xam fii la moo xam ci biir ci biir réew mi la pare nañ pour jox la suñu xalaat yooyu ak suñu expérience boobu bu ko defee dëkk bi dëkk bi set réew mi set comme ni ko son excellence le président Macky Sall bëgg jërë ngeen jëf.